Junet yi gën a fës ci digg internet bi du kenn nag dul ki nga xam ne moom moo di Ameth Thiou Ameth Thiou daal la ñuy daal di gis mu daal di fës ak ki nga xam ne moom lañ ne woon mooy ñaareelam ci biir internet bi ñu ànd ak seen doom di vacances foofe ca Casablanca li ñu jaaxal nag mooy que ni moom ba muy takk dafa ne woon dafa takk ñaareel ñaareel la takkoon moom mooy nekk mami soppe waaye ci biir loolu ci biir dégg nañ ne awa ba daal daal dina gàddu ay bagage am daal di ñibbi këram muy Khadija mu jaaxal nit ñi nag jaaxal sénégalais yi ndeke jamono ji yëpp Ameth Thiou yorul ñaari jabar amul benn jabar ndax lu ko waral dafa daal di takk euh, ñaareel awa ba daal di gàddu bagage am yi ñibbi wala ci biir sëy bi nga xamee ne moom la nekkoon ak ñaari soxnaam ci lañu am problème ba awa bi divorce en tout cas lu ci mënti am mooy que ni jamono ji ñaareel bi lay wooye première daamam ñoom ñaar daal ñoom ñoo daal di def seen vacances yu ne wuutu yu mucc ayib foofee ca diwaanu Casablanca mu nekk nag loo xam ne doy na waar ba fa doy waar yem Ah, bu ñu jógee ci actualité people boobu dañuy daal di ñëwaat nag ci suñuy ah, beneen people mu jongama ba ni muutu moom it ah, bàyyiwul dara nee naa la bu jëlee yére tubaab nga ni foofa la moomee mu jël yére olof nga ni waaw kay gonga du kenn nag kutul Gigi jamono ji nag moom nag daal na capp loxoom ci soos waaw wow Gigi capp na loxoom ci soos ndax jamono ji mu ngi def buzz du net gannaaw bi nga xamee ni nag génnee na loolee di albumam nga xam ne mu ngi toj àdduna addu toj àdduna woon ngër këpp Guigui taxawaat na ci sañseem nee na look bu bees la daal di génnee moom daal mu ngi noonu tabaar fakàlla macha allah xale bu jongama ba yàq ba ni muut jamono ji nag moo ngi def a du nett xam naa ne nag li muy xaar rek mooy góor gu baax gu ko yor guy fëgg waaye dafa mel ni xale góor yi dañoo ragal jéeg si leen ak jàmm gi gée ngi noonu wuy ma nit rek la dugg leen ak jàmm ak salaam buñ jógee ci actualité di jugaat ci ndaanaan delluwaat eh, ci ndaanaan lu tax nag ma dal di ko wax nekk na xale boo xam ne eh, moom métti mu ngi daal di def buzz xale bi li mu jongama rek xeeb na ko macha allah xale bi eh, li mu aay rek ci wàllum rôle bi nga xam ne mu ngi koy def mooy actrice bi mu doon moom métti macha allah fu mu génn rek nga ni gongo du kenn nag du la ajara de la série Woudiou Pet moom nag la dal daal di dalal jamono ji nag mu ngi daal di def buzz ci côté bépp ci sourire sourire rek nee naa la àdduna wërngal këpp daal di kontaan waaye tamit bu génnee rek sénégalais yi féex sénégalais yi kontaan moom nag lañ daan dalal tey moom metti mu bokk ci people yi nga xam ne ñu ngi daal di def buzz bu baax a baax a baax waaye tamit bokk ci loo célibataire yi nga xam ne ñoo fi toog rek ne déji dee jaaral amaguñu jëkkër xam naa ne nag du yàgg waaye tamit ñàkkul ne góor ñee ragal

mu nekk loo xam ne nag doy na waar ba fu doy waar yam gannaaw bi nga xamee ne jotoon nañ jàpp 40 personnes ci ay njoñam ñoo xam ne ñoo nekkoon ca camp ba doon redressé nit ñi ñoom nag bañ leen jàppee am na woon ay ex prisonniers yu génnoon nag di def ay témoignages lu ñu wax mooy que ni foofee nga xam ne dañ leen fa dencoon ngir rek yaraat leen ngir éduqué waat leen ñu bàyyi lépp lu bon nee na nag lu bon fa la fekk baax gannaaw ba ñu waxee ne de tux yamba bi ñu leen di tere ci biir doomu colonel bi moo leen di jaay laxas 2000 ñu ne déet dawaay ñu ne am na ci ñoo xam ne dañ leen di maltraité di leen dóor di leen def naka sudul noonu ba tey yemuñu ci waaye li gën a jaaxal nit ñi gën a metti nag leen rek la mooy lan mooy ñu ne dese yi nga xam ne bari na lool ci biir camp ba am nag amul en tout cas tey ci suba bu ñu xëyee annoncé nañu benn ex pensionnaire moom it nga xam ne foofee ca boobu la nekkoon gannaaw ba mu yàggul dara ci la daal di faatu xamuñu nag ba xam ah, li ko faat mooy que ni maltraitance bi nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon dund foofee ah, ca biir camp yi am dafa génn daal di feebar tombe waral ay gaaf mu daal di faatu en cas li ci mel mooy que ni enquête bi ñu ngi koy commencé di wéy ñu ngi lawal enquête bi waaye tamit ki nga xam ne moom moo di Serigne Modou Kara jamono ji moom takkal nañ ko ba mu takk ah, rip rip rip rip te gëw mën a it dina ci gaaw a set noonu en tout cas doy na war ba fa doy waar yem fait divers bu sensible ah, bu ñu jógee ci lolu dañuy ñëwaat nak ci beneen actualité ah, fait divers fait divers bi nak xewul fenn fu la fi ci Sénégal way tamit mu nek tis ak naqar foofee ca diwaanu Almadi tey nak bañu ñu lañu la ñu di information bi ñu né lan l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Sénégal trouvé mort chez lui mu nekk nag loo xam metti na ba fu metti way tamit dafa daldi jour jur lu waral ma dafa jour njàkkare moy que ni nit la koo xam ne moom it dafa liggéey ba wàcc nekk këram daal di nelaw yeewul faatu ci saas yi mu nekk nag loo xam ne metti na ba fu metti yem ndax moom mais gannaaw bi nga xamee ne nag jot nañu def autopsie dañoo ne mort naturelle la daal di mort moom ambassadeur boobu nga xam ne nag moom moo représenté woon Afrique du Sud fii ci mim réew ñu koy ñaanal yal na ko yàlla xaree ko àjjana waaye it baal ko ay bàkkaar buñ jugee ci fait divers boobu nga xam ne tiis ak naqar la ak suñu mbokk euh, sud africain yoyé dañuy daldi ñëwaat nak ci suñu mim réew nak tamit ñu nit euh, mën naa ne semaine ngi ni ñu nekk ci dëj dëj bu metti dëj bu tiss dëj bo xamné ne xol yëpp a tooy bi ku ko dégg rek am nga loola naqari du kenn nak ku dul suñu international bobu nga xamné euh, Sénégal tay bu ko ñu bëri xamé grâce à lui la mom ci la bokk nak tamit mo njëkk duggal dugal coupe du monde 2002 premier but contre France bañu door li nga xamné mom modi France té kenn xalaatu xalaatul woon réew mu tuuti mii di Sénégal dina mës door réew mu mag moomu di France muy Pape Bouba Diop Pape Bouba Diop nag tey jii nage nii may wax ak yéen suñuy naataangoo yi ñu ngi foofee ca aéroport Blaise Diagne di xaar li nga xam ne moom moo di depuis bi maanaam koor bi yegg si jàmm ak salaam ñu daal di ko toppatoo ni mu waree ak yër ko ni mu waree waaye tamit fee nga xam ne tamit moom moo di dëkkam di Rufisque ñoom it ñu ngi waajal li nga xam ne moo di dëj bi suba incha allah ñu ngi ci préparatif yi di waajal autorité yi nga xam ne ñoo fa war a ñëw jaale fi ñuy war a mën a nekk ak fi ñu war a mën a taxaw ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ñëw pour daal di ko souhaiter seeni dernière adieu ki nga xam ne moom moo di suñu international bu mag boobu di Pape Bouba Diop ñu koy ñaanal nag yal na ko yàlla xaree àjjana te yéexee ñu mu nekk lu metti nag ak tiis buñ jógee ci loolu nag dañuy wax waxtaanee ak ndaanaan waaw ndaanaan la nag ndax koo xam ne nag moom bu génnee wax heure bu génnee wax ñëpp tiit ñëpp jommi ñëpp dar seen a gémmin na kooku laay ñëwaat muy kànnaa kocc Kocc nag jamono ji nag mu ngi ci guddi gu ba segagul foo Kocc moomu nga xam ne moom ak copinam ñoo doon daal di def chantage ci Facebook bi ci réseaux sociaux lu leen waaye neex ñu wax lu leen neex def boo xefee sax ñu def euh, collage daal di la def ci internet bi parfois nag eh, mu wax dëgg dëgg la dëgg l'essentiel que mooy jamono ji moom euh, mu ngi ci guddi gu ba segagul daal di nañ ko jàpp euh, jàpp nag ki nga xam ne moom moo di jabaram joojee nga xam ne copinam laa ko mën a wax ñoom ñaar nekkoon daal ci réseaux sociaux yi di tiital bëggal nit ñi di def seen yu baax baax daal ak chantage ak yooyu jeex na nag billaay lu dul jeex buuru yàlla rek dul jeex nguuru yàlla kese dul jeex waaye léppay jeex Kocc a ngi noonu nag jamono ji mu ngi ci guddi gu ba segagul buñ ci lolu dañuy nak ci benen actualité fait divers mais bien nak mom doyna war ba fa doy war yam té suñu mbokk jigéen la nous di concerné damay ñëw rek waxtaan sensibilisation surtout nak ñun ado yi tout âge bok ak ñom ñom mëna wax les adolescents nañu bayé xel bu a baax xamné ay xalé lañu ne mo yurum tamit jigéen lu lu mat a bàyyi xel la jot na nag ñu xoolaat suñuy comportement parce que des élèves de rien du tout yoo xam ne dañ leen daal di tëj 6 mois ferme waaye tamit ak sursis ci lu ko waral mooy que ni dañoo daal di ëmboon ba pare nag doon jéem a yàq ëmb boobu nga xam ne ñoom defoon nañ ko ba yoon teg leen loxo àdduna dara jaru ko fi sama mbokku jigéen ñi nañu bàyyiwaat xel di moytu te xam ne góor ñii ñoom ñu ngi noonu rek ñun ñoo mën a gën a leeral suñu xol gën a mature ba kenn duñu mën a nax wala kenn duñu mën a dugal ci guddigu bësagugul boo xam ne dinañu teg suñuy waajur ak gàcce ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax voilà c'était votre émission 100% people Je vous tout ce qui est information people et fait divers di leen jox nag dig lundi Inch'Allah, allah waaye balaa dama di bon week-end ne Nak, happiness la leen wax xappi leen Sénégal Dal, xappi leen firi stress sonal bu leen merci beaucoup à la prochaine bye.